أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لست لستن كأحد من النساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا di jël nuyoo bi tamit di ko teg ci loxo imaam imaam ñi ngi lay nuyu bu baax sàmb imaam sàmb ñi ngi lay nuyu moom it muy sunu wëlëri li ban ko tàmbalee ba nëgë ni rek tubaarkàlla damay gis dañuy yokk waaye tubaarkàlla macha allah dara wàññiku lépp mat na kon nag imaam ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay du nuyu nag suñu xarit suñu soppe nga xam ni bu ñu nee mag ñu baax ñi fi nekkoon démb ku mel ni suñu baay alaaj Ibrahima mag ñu baax ñooñu fi nekkoon démb suñu baay alaaj Cheikh Gassama mag ñu baax jooñu nga xam ne seen lépp dañ koo jël def ko ci diine lislaam yee jullit yi waar jullit yi waxtaan ak jullit yi buñ ko waxee rek seen suñu xel na dina dem ci tafsir Abdourahmane Gaye islamologue bu mag bi ñu lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam képp ku fi teew ñu ngi lay nuyu di la ziar jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi El Hadji Tafsir Abdourahmane di suñu sëriñ suñu jarbaat ma bëgg nag wax ak askanu waa Kër Damel parce que yàlla moom mooy dogal xëy na pratiquement nu some à un an d'exercice mais yàlla def na ni tey sur le plan officiel xëy na bii mooy suñu ndaje bu njëkk ndaje bi nag nekkul ne parce que amul leen njëriñ ci commune bi c'est-à-dire que waaj bi moo yàgg moo tax tey ma bëgg ni ni jotaay bi taaroo yëkkati sama loxo jox ko askan waa Kër Damel yépp parce que Kër Damel moom mooy buntu commune bi commune Patte boo fi dugg Kër Damel ngay tàmbalee euh, après yaa ngi jeexale Soprim extension wala marché Limamoulaye ma bëgg tey ji féddali ne ñu am solo ci commune bi ngeen te lépp loo xamante ni def nañ ko fi laata ñuy toog di nekk maire ci Kër Damel lañ koy commencé. mbokk yi donte waxtu wi xat na waaye notable yi fi nekk yépp euh, président conseil quartier bu Kër Damel Seydi Diagne ak ki nga xam ne mooy président bi yor liggéeyu grande mosquée Kër Damel Seyd xaji mbaw ak ñi nga xam ne ay notable lañu bokk nekk di ay membre fondateur ci jàkk kër dammee ak quartier bi a cheikh ma eh, Masay Ngom su ma ko tuddee rek tudd naa alxaaji Pape Diop ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoo ngi fi ku lim juum eh, cheikh Ibrahima Diop ñu gën ko xam ci Brahima Diop di Pa Diop eh, bu ñu tuddee délégué de quartier rek ak ñii tudd nañ ñëpp bu ñu tuddee yaay Fatimata Ndiaye tudd nañ ñëpp alxaaji Tafsir dama ko ni waxtu wi dafa xocc kon li ñuy def rek mooy ñu diglu la yow lañ doon xaar waaye mu ni nañu def benn tamhid bu gàtt mu daal di tàmbali tamhid bi mooy ni daaw dañ fi daje woon di ñaan yàlla fekkewaat déwén yàlla may nanu ko naga si daaw euh, ñu doon waxtaane maasirul mara fi taarixi nachati makka al mukarrama njeextalu jigéen ci sosug màkkatal mukarrama bi nga xam ne jàkka ju fa jubluwut boo ci jullee sa julli du mën a baax ndax ku julliwul xibla sa julli du baax influence bi nga xam ne jigéen am na ko ci sosug màkka loolu thème bu yaatu la woon bi nga xam ni mën naa wax ni du Sénégal rek moo ci jariñu du Afrique rek moo ci jariñu waaye àdduna si yëpp ndax dem nañ ba ci keroog jouru tabaski am télévision yoo xam ni divisé nañ ko ci seeni chaîne adduna si yëpp di ko seetaan ba am sax ñu jokkoo ak nun nekk ca Màkka di wax ni noo ngi seetaan seen conférence bi ñu gis ñu ñu bokk ci ñu toogoon ci taabal ba kon day wane ni amoon na njariñ bind boobu nag Cheikh Tafsir moom lañ doon nafar daaw ba yàlla tett ñu beneen dellu siwaat soxna yi tànn beneen thème boo xam ne jigéen nañu waaye nag it euh, bokkuñu ba léegi ndax bële dafa nekkoon influence yu jigéen ci sosu mag tey nag ñu bëgg nga joxaat leen beneen bind ci sayidaat mutamayiza fi suluuki wala ibaada wa xusni tabauli jox leen ay exemple ci ay sang yu jigéen yoo xam ni taarix bind na leen kon dootuñu leen fàtteeti ràññeeku nañu ci jikko ci moral seen jikko rafet na ba yàlla tàgg leen jigéen ñoo xam ni seen jaami wunu yàlla rafet na ba sunu borom tàgg leen waaye soxna yu tedd yoo xam ni euh, rafet nañu nañu nekk ak seen boroom kër taarix bind ko te ñetti façon yii di sotteeku ci benn ndab te moo di dégg ndigalu sunu borom tabaaraka wa taala bu ñu ko tàmbalee ca saaratu ñëw ci haajaratu di ñaari wujj yu àndoon te juboo lool di ñëw ba ci imraatu imran di maryama di ñëw ba ci imraatu na borom borom kër bu kàccoor ba te mu baax lool ba yàlla ni ma nga àjjana bu ñuy ñëw di ñëw di ñëw ba ci xadija umul muminin ba ci fatima waaye di barastiku ba ñëw ba fii ci réew mi du ma tudd tur ya fa nekk tafsir moo ma ko gën a xam kon donc bind la bu yaatu boo xam ni yaakaar naa buñ ci nekkoon ba euh, waxtu ndogu jot ba ñu sant sillaak jaxateeg mbay ak mbaay dañuy daw wàccunu fi du tax mu jeex kon cheikh tafsir alkalimatu ilayk waljamaa waljamahir haulahi amamak yastamicuuna wa yastanquuna min kalaamik wa yastanbituuna min anwaari cilmik wa yuriduuna an yastafiduu minka kama stafaadu fi laami almaadi wallahu waliyu dalik wa huwa ala kulli cheyin qadir tem bu doy waar ngeen jëlati de mooy da a bëgg ñu waxtaanee ay jigéen ñu baax ñoo xam ni ñu ràññeeku lañu ci wàllu jaamu yàlla waaye bu ñu nee jaamu yàlla nag ñu baree bari boo waxee jaamu yàlla rek dañuy yaakaar ni jaamu yàlla daal mooy allahu akbar asalaamaaleykum comme ni ma koy waxee dem jàkka ja dem màkka natt azaka woor weeru koor déedéet bu ñu nee jaamu yàlla baat la boo xamante ni lépp loo xamante ni tiyaaba mën na ci juddoo daf ciy dugg te jigéen kenn mënul wax jigéen ju baax li mba àggal te li moo jigéen joo xamante ni mbaaxam exemple ba ngay jël dangay jël digganteem ak boroom këram kon day bokk ci jaamu yàlla beneen bi manoo waxit jigéen ju baax ba daaneel te tuddoo jigéen joo xamante ni mbaaxam dangay joxe exemple ci moom ak wujjëm maa ngi wax lu jafe nag am na ñoo xam ne sax nee nañ moom nag dafa soof moom waxi wujju da koo neex rek waaye ñu baal ma rek wujju mënuñoo jël misaal ba daaneel te duñu indi misaalu jigéen ju baax joo xam ni mbaaxam yàllaa ngi ko wane ci digganteem ak ka ko yàlla booleel ñu bokk benn jëkkër moo xam moo fekkiwaate wala ñu fekk si ko muy ci wàllu jaamu yàlla ba tey mënuñu waxit jigéen ju baax te duñu tudd jigéen joo xam ni dafa takk ndiggam ci ndigalal jëkkëram dem di liggéeyi ci biroom ak di wàcc wala muy jaayi ak di ñëw ci ndigalal jëkkëram di liggéey daal liggéey boo xam ne lislaam may na ko mu liggéey ko te tuut samuy am du ci jàppale boroom këram kenn mënu koo tudd ba àggal te doo ko tudd waaye nag bu ñu dee waxtaane jigéen ju baax fii Sénégal tollu tey xam ngeen li tax li ma bëgg a wax mooy fii Sénégal tollu tey bu ñu ñëwee ba moment bii ñu tollu tey di le vingt six ou le 27 juin samedi 27 juin fii ci ndakaaru fii ci cité Kër Damel ñu ne nañu waxtaane jigéen ju baax fi Sénégal tollu tey am na lu tax ndax Sénégal nag mu ngi bëgg a doy waar lu baree baree baree baree bari jigéen mënaan mënoon naa sax bañ a baax ay jamono waaye ñimewu ko woon léegi nag li doy waar ci Sénégal mooy li tax neexatul waxtaane mooy ñi ñu tudde jigéen ñu baax ñi ñoom ñooy def loolu moo tax ma ni maa ngi wax maa ngi bëgg a waxtaane lu doy waa ndax waxtaan dañuy wax ni l'islam boo ciy waxtaan dafa mel ni lotissement bu jóg lotissement tey bu duggoon cité kër dammel war ko lotissé bu doon lotissé wuñu ko du xàmmee bâtiment wu cent millions ak bâtiment wu cinquante mille francs moom li muy xam mooy fi yoon wi jube lislaam loolu la lislaam bu xësee jóg moom boo joxee thème bi moom ba ñu xës jóg nag ah bu ñu jëlee uslub bi nag moom dañuy jubal rek leglee sax ñu ni teel dal ci kenn koo xamante ni bëgguñu woon mbir mi dal ci kawam waaye su boobaa na dem defaruwaat rek leglee man ci sama bopp ma wax ba mu yàgg laal sama bopp laal yoo xam ni dama naan ñii xanaa lii lañ bëggoon mën lañ bëgg a waxal te xamuñu ni ñuy waxee ak man sant ma tem bii waaye fi réew mi toll tey waxtaane jigéen ju baax yombatul jigéen mën na ñàkk boroom kër baax jigéen mën na am boroom kër baax lu ma bëgg a wax mooy am jëkkër taxu la baax waaye ñàkk jëkkër terewu la baax ah ah kooku sama mag la ajaa kinne kinne ñang maa ngi koy ziyaar dégg nga wax nit mën na am jëkkër baax mais nit mën na am jëkkër ba pare du baax nit mën na ñàkk jëkkër baax nit mën na ñàkk jëkkër te du baax li ma bëgg a wax mooy ndekete mbaax ak bon nekkul ci jëkkër mbaax ak bon jikko la tey dinaa la tuddal ñoo xamee ni kenn ku ne bu ma la leen tuddalee kii mu ngeeg jëkkër kii amul jëkkër mais it ma xamal la ni baax nekkul ci jëkkër ju baax léeg nga am jëkkër ju bon lool du la teree baax mais léeg it ndekete baax newul ci jëkkër ju baax léeg nga am jëkkër ju bon lool baax mais léeg nga am jëkkër ju baax lool ba pare bon pour yow mi nga xam ni danga naan yow jigéen nga yaa ngi ci tànt bi damay waxtaan ba mu yàgg siteel la benn jigéen ñu daan ni jëkkëram nit ku baax la woon nga ni ah man de bëgg naa baax waaye xam naa du ma mën a baax ndax sama jëkkër ji bu ma la tuddee ki ma lay tudd di nga xam ni sa jëkkër lu mu bon bon bon ndëgam bon na ñu baal ma ci wax bi lu mu bon bon ndëgam bon na kii ma lay tudd moom sa jëkkër a tane jëkkëram te terewul mu baax waaye bu ñu tuddee nit it mu baax yow nga doon jigéen meloo na nga war a mel nga daan ni ah waaye kii nu muy def ba du mel nii moo kii kan moo doonoon boroom kër ñu ne alaaji Abdoul Aziz Dabakh kii kan moo doonoon boroom kër ñu ne Cheikh Ahmad bàmba kii ko doonoon boroom këram ñu ne alaaji Malick nga ni ah non kii nii dong la war a mel moom baax rek ko jik ndaxte boroom këram a baax déedéet dinaa la tudd koo xam ni moo gënoon fuuf Cheikh Ahmad bàmba gën fuuf Cheikh alaaji Malick gën fuuf Cheikhuna Tidiane gën fuuf Cheikh Abdou Khadir Jeylaani te soxnaa ngi woon ci ay loxoom bona bona bona bona bon ba tey jii jigéen ñëpp xeeb nañu jigéen jooju notaire rek yii yëpp dinaa la ko tudd te du doon sama waxi bopp insha allahu nañu dem kon jigéen na bàyyi xel ni mbir mi nag ci loxoom la nekk xam nga léeg-léeg ñun ñoo leen di yóbbu ci erreur ndax léeg-léeg dañ may sant conférence boo xam ni xam naa ni ñi may conférence al mooy ñi ñuy tuddee féministe la xaw ma ñoom dañu bëgg afeeru jigéen jigéen jigéen ma ñëw rek naan leen yéen yéen a baax jigéen ñi yéen a gën góor ñi leen li yàlla di defar ci yéen la koy dénk góor du ëmb jigéen ay ëmb nangam naam dama leen di nax rek léeg-léeg seytaane moo may man rek ak bëgg xaalis ma topp sama bànneexu bakkan di leen wax loo xam ne yàlla waxu ko yonent bi waxu ko pour encaisser leen dem sama yoon waaye bu fekkee dëgg rek la te dëgg rek di dëgg rek te dëgg rek di dëgg suñu boroom subhaanahu wa daal lépp ci yéen la koy jaare léeg nag ci seen melokaan yéen ay génne mu taq baa ngeen génne mu set kon am ngeen ñaari responsabilité du bon lu bon rek yéen la déedéet waaye du lu baax rek yéen la ndekete lu baax yéen la lu bon yéen la yàlla daal mu ngi taw bi muy taw nag jigéen ji mooy taataan boo taataanee ndab lu set sa ndox bu ñëwee day set wecc mais boo taataanee ndab lu taq sa ndox bu ñëwee taq dégg nga wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakidan bu fekkente ni jigéen ji ko set la lu mu taataan day set moo waral doom ju mu am yàlla mën na ci def barke mais bu fekkee ni jigéen ju taq la lu mu taataan mu taq te biir bi lay taataane moo waral léeg-léeg jigéen ju mu jur doom ju mu jur du baax moo tax ñu bëgg jigéen d'abord fi ñuy tàmbalee mooy jigéen li war a jiitu ci moom mooy bala muy sëy bu dee ko sëyagul tey sëy na tànn jëkkër ni góor ñi di tànne jabar léeg-léeg na ko jigéen tànn jëkkër ndax léeg lañ lay sotti du baax nag ndax bu ma la takkee ñu war a am doom man ak yow dañuy ànd bu ñuy ànd ndox miy jóge ci man mooy forme doom muy mën mëni yubbi ndox moomu dafa am fu mu jógee ndox moomu ci fan lay jóge ci ay vitamine pour ma lekk ko damay lekk ay vitamine ñooy former ndox moomu par exemple jënd naa benn hamburger ma lekk ko bi ma ko lekkee formé na am ndox ci man ma ànd ceeg yow mais dee lijjanti tafsir mi hamburger yi muy lekk wala boo depense bi muy joxe këram ba di ci lekk ba war a mën a am bi vitamine yii mu am ba ñu war a mën a am doom tafsir lan lay liggéey fu muy jëlee bu fekkee tafsir ab carte kat la hamburger bi fu mu jógee xaalis ba du xaalisu carte waa léegi xaalisu carte léegi nañu xool doom ji man carte naa gañe ci xaalis kon xaalis bi moom doomu carte la léegi ma jënd ci emburge hamburger bi doomu xaalisu carte la léegi hamburger boobu jur na mëniyu mëniyu bi kon moom mooy indi doom ji doom ji juddu na kon boo toppee askanu doom ji muy doomu hamburger hamburger bi di doomu xaalis xaalis bi jóge ci carte kon doom ji mën a jur ak yow surtout carte la est-ce que yéen a dégg fi may waxee li may lekk man li may dunde sama kër pour mën a ànd ak yow ndax fokk ma lekk pour mën a am kartanu ànd ak yow fokk ma lekk pour mën a am menu bi nga xamante ni mooy jur doom ji bu fekkee li may lekk yépp dara lewu ci dara daganu ci nga baax ba bëgg dee di jëkkër gis ni am na xaalis rek nga ànd ak man yow baax nga set nga li nga war a mel yépp mel nga ko mais pour nga am doom ju baax du yomb parce que li ma lay li ma lay alimenter yow pour ñu am doom alal ja moo lewul baaxul bu ko defee boo génnee ñu ni ah doom ja ndey ja fekk ndey ja yoonam newu ca waaw c'est vrai que doom ja ndey ja parce que ndey ja moo tànnul kam waroon a tànn waaw léegi nag comme yow bu baaxee ñu ni yaay ji bu bonee ñu ni yaay ji te yaay ji moom léeg-léeg la ñu koy ndil moo baaxul li ñu ko jox rek la delloo mais yaay ji na seet ki koy jox fi muy jëlee est-ce que yéen a may dégg kon jigéen bu ñu ko neena tànn lii moo waral ñu ni ko tànnal ñu jël misaal suñu boroom subhaanahu wa taala nee na man amila aw صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة gis nga parité bii ñuy wax ci réew mi bu yàgg ba tey ñuy wax parité parité parité alxuraan moo jëkk a d'accord parité ndax yàlla moo jëkk a wax ni ku def lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga dinaa la fay lu tolloog la nga def amul payu góor ak fayu jigéen ku def lu baax rek lañ la war a fay moom lañ lay fay bu fekkee loolu mooy parité alxuraan a ko jëkk a jigéen ñi dañu ni nañu fexe ba jigéen juy liggéey liy ak xam ñu fay ko ko alxuraan ne man amila saalihan ku def lu baax min zakarin moo xam góor la aw unsa wala muy jigéen wowwa te moom ma ko def ba mu koy def muminun muy aji gëm yàlla fala nuhyiyannahu danañu ko dundal xayaatan tayibatan dund gu neex te wala najziyannahum danañu leen fay muy góor di jigéen ajrawum seen yool bi ahsani ma kaanu ci gën jaarafetu la ñu nekkoon yamaluuna di ko def kon góor ak jigéen ñoo yem foofu salaire waa léegi lan moo waral ñu bàyyi ba tey nag ñu ñëw rek bëgguñoo ñoo sonal parité parité parité parité parité parité kon ña ko deful woon ñoom ñooy wax waaye du ñun waa lislaam ñun waa lislaam moom ñu ngi ci beneen bi mooy boo gisee jigéen ñi léeg-léeg ñuy kaas lu ñuy kaas lan moo waral alquran ni bu góor dee nu ndeyam na doon nu ñaar jigéen buy donnu ndeyam na donn benn bu góor di donn baayam na donn ñaar bu jigéen di donn baayam na donn benn ñu ne lan moo waral alxuraan di wax loolu loolu c'est pas normal nangam nangam mais kon lan moo waral alxuraan ni jigéen yow demal nga liggéey boo liggéeyee li nga am nu mu mënti tollu gardeel man tafsir demal nga liggéeyi jigéen ji bu mu fi xiifee bu mu fi mare bu mu fi tilibe bu mu fi feebaree bu feebaree fajal bu xiifee joxal mu lekk bu maree joxal mu naan bu amee stress nax ko ba mu kontaan mais kon xanaa alxuraan foofu la gë xanaa kon ci góor ñee gën a dee ñun ñooy topp naaj wi ñun la yow téyeel li nga yor ñun ñu nekk ci naaj wi di daw guddeeg bëccëg di ñëw di la jox kera maa ngi wax ni góor ci moom la war sax jabaram bañ am stress xamoo ni góor goo fi gis muy jox jabaram stress du ku baax kera maa ngi ci conférence dem naa ba ci ba sama yaram tàng ci ma ni leen jaadu woon na sax góor ñi léeg-léeg léeg-léeg jërëjëf Diop papa yàlla boo ko ñàkkati kera moom nii lay def rek at mu jot mu def ko yàlla nañ ko fekkee déwén nga defaat ko kera nee naa leen war na dem ba ci bu ñu toppoon alquran nga ñëw sa kër fekk sa jabara xaw a am lu ko naqari nga xëcc sa buntu tëj woo ko mu dugg ci biir nga tëj buntu bi yéen ñaar rek nga laaj laaj mu ne pat nga jël sa sër rek wodd aj benn tànk bi rek aj bi ci des fecc ba ne ko saay kera bi ma waxee loolu nag benn oustaz la jóg ca conférence ba ni ma ah, yaa ngi bëgg ëppal nag loolu nag d'accordu ma ci nag moom ma ne ko lu mu ne ma mais man dama d'accordul ci góor guy fecc ma ne ko fecc dafa araam mu ne ma noo ci jigéen sax tane na mais góor guy fecc moom yiwul ma ne ko mais laaj li ma la laaj tontu woo ma ci de dama est-ce que góor guy fecc dafa araam am déet mu ne ma noo dafa yiwul ma ne ko waa léegi d'accord kon bàyyil ma laaj la mu ni tekk ma ni ko sawaay léegi est-ce que yiw na góor gu taxaw ci kanamu jigéen summeeku ba set mu ne ma mee jabaram la ma ne ko non sa waay waxuma loolu de dama ne ndax yiw na am yiwul nag yow tamit nag affaire bi nag débat bi nañ ko teg ci yoon nag comme conférence laa ne maa yor kàddu gi di wax nga wax ma lay déglu bu ma la waxee tontu ma ci li ma la laaj mu ne ma non góor gu taxaw ci kanamu jigéen di summeeku kay parce que jabaram la ma ne ko non waxuma loolu dama ne yiw na wala yiwul mu ne ma jabaram la ma ne ko ah, baal ma tontu bon kon dëgg ma bëgg a bu dee sa jabar dina yiw mu ne ma waaw sa jabar ma ne ko waaw kon bu dee sa jabar nga taxaw ci kanamam feccal ko kay loolu xanaa bu dee yiwadi summeekoo gën a yëwadi li la may summeeku bi moo la may pecc mi dagan na sa waay demal mu xool ba mu yàgg ni ma ah man de kon man bu ma dee lëmbal moom damay wodd ma ne ko yow lëmbalal rek waaw bu may lëmbal damay sol yére ma ne ko lëmbalal rek démb nag dama ko wax dama ko wax ci benn conférence génn góor gu mag ndeysaan paa bu baax benn paawu naar la jóg ni ma eh doom ñoom dañu xamul man sa naar bi de man lépp laay def man mais parce que dafa naar yi dañu dégg l'islam xam nga lu ma bëgg a wax mooy waxuma fecc dafa dagan déedéet newuma foofu mais maa ngi ci diggante jëkkër ak jabar lépp lu ñu defante ci seen biir ñoom ñaar kese mu yem ci ñoom ngir bégalante l'islam d'accord na dagan na nga feccal sa jabar dagan na nga feccal sa jëkkër feccal ba sànni sa tànk waa ji nag fecc ba mu tudd moo kii rek xam nga ma ah alaaji Masey nee na day kii ana Ndey Saw Nafi Jaañ ani mu nañ leen laaj Pape Diop laajal ma Nafi Jaañ ak Ndey Saw ba xam xam nga li ma bëgg a wax rek mooy kon góor bu yàlla nee ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم bu yàlla demee ba ni góor ñi góor ñi yéen a war a jubbanti jigéen ñi ndax lan li yàlla def ci yéen te defu ko ci ñoom parce que am na benn fit boo xamante ni góor am na ko mais jigéen du ko am lu mu ñime ñime ñime ñime ñime lu mu jàng xeex jàng xeex bu dajee ab góor boo xamee ni ku am fit la léeg jigéen ja dina daw foo xam ni góor ga du fa daw lu jigéen am doole am doole am doole moo xam day altéeru moo xam day entraîner lu mu bari doole bari doole bari doole bu mu dajee góor guy def li muy def bu dajee góor guy def li muy def xam ni doole góor ak bu jigéen du benn moo tax yàlla ni góor ñi nañuy jubbanti jigéen ñi ndax ngëneel gi yàlla def ci góor ji ci wàllu doole ci wàllu man-man loolu rek la waaye du caa génne ci jikko yàlla nag ne jigéen ñu baax ñi fa saalihaatu jigéen ñu baax ni qaanitaatun ñuy topp seen boroom lañu ci lu feeñ ak lu nëbb waaye xaafidaatu lil xaybi ñuy sàmm lañu ci kumpa jigéen ju baax jëkkëram ju fi ne ak jëkkëram ju fi nekkul moo yem ci moom jigéen ju baax mu am jëkkër ak mu ñàkk jëkkër moo yem ci moom moo tax suñu boroom ni xaafidaatu lil xaybi bi maa xafida allaahu la leen yàlla wattuloo ñoom dañu koy wattu ci nëbb ci ci ci ak fu ñu mën ne bu ñu nekkoon ba bitim réew it bu ñu fa doon def fukki at juróomi at am nañu ngor goo xamante ni dara du leen jaral ñu joxe seen bopp ci àll bi jigéen ñooñu nag la ñuy cité ay quelques jigéen rek ndax waxtu wi dinaa ci jël kenn daraba allahu masalan lilladina amanu imraata firawna id qaalat rabbi bni lii indaka baytan fi ljannati wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi alzalimina xoolal ji jigéen mu ñu koy wax asiyatu bintu muzahim xam ngeen koy jëkkëram firawna bërki biig rek suukaru koor maa ngi waxtaane firawna kera ba muy lab baxarul xalsuum iblis feeñu ko mu ne ni ko yaa ngi ci jafe-jafe de mun ko maa ngi ci jafe-jafe mu ne ko ah lépp nag yaa ma ko yóbbee billaahi yaa bon iblis ni ko na pour pourtant li may bon bon maa la tane de yow de maa la gën firawna ni ko yow lu ma dugg yaa ma ci dugal mu ni ko waaw waaye masumaa wax ana rabbukumul aala man maa yàlla iblis nee na li may rëy rëy rëy ay tooñ li may bon bon ma sumaa wax man maa yàlla waaye yow dangaa taxaw ni yaay yàlla te baatumaa yàlla lu ko gën a bon amul firawna ni ko wax nga dëgg nag baat boobu dafa ëpp waruma ko woon a wax waaye est-ce que ñun ñaar am na ku ñu yées firawna ni ko yow gaa moom maa la tane yaa ma gën a bon mais am na sax koo xam yow yaa ko tane iblis ni ko Firawna ni ko waaw Iblis man ak yow ku ñu tane kan la mu ni ko mooy ki dund ndeyam ak baayam ba suul leen te ndeyam ak baayam gërëmuñu ko kon ndekete ki dund ak ndeyam ak baayam ba suul leen te gërëmuñ ko moo yées ci lu yàlla bind deuxième ki yées Firawna la troisième doog a doon Iblis mais kon Firawna ku ko fi ku fi am jëkkër ju yées Firawna am na fi amu fi am na am na fi ku jëkkër a masa taxaw ni man maay yàlla يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظن من الكاذبين ايه كان لا في جكرم مسال fuuya fuuya fuuy ba taxaw ni eh yow diw sama chef de protocole wala sama assistant tabaxal ma benn immeuble ndax damaa bëgg a gis yàlla yi yonent yàlla Muhammad ji parce que damaa defee ni Muhammad li muy wax du dëgg man maay yàlla am na ku ko fi jëkkëram mas a def firaaw na loolu la def moom mais na moomu kon fi bon yem fa la yem fa la déparé moom mais Firawna ji jabaram Asiyatu bintu Muzahim la ñu koy wax Asiyatu bokk na ci jigéen ñi yàlla tànn ñu gën ci jigéen ñi ba bu yowmal qiyaamee bokk na ci soxna yi nga xam ne dinañ leen may Sayyidna Muhammad ngir lan récompenser ko ndax mbaaxam xoola Xadija mi ma lay nettali Xadija bi mu bëggee ñu may ko al amin muy Sayyidna Muhammad ndax boobu doonagul yonent wala boog jotagul ci risaala gi ndax moom kaana nabiyan wa aadamu bayna al maai wa tiini waaye jotagul ci risaala gi à l'âge de vingt ko fontoo bañ ko koo mu bañ xale bi rëcc ko sàngara ko dóor ba mu mànti moo tax Seydi Hadji ni am nañu ni inna al muzawija qaalul amru nee nañu amr ibnu asadin moo ko maye mooy al amru qiila am ñu ne déedéet amru ibnu xuwaylit parce que xuwaylit mi jur xadija am na doom tudde ko amru mii di frère am moo tax ñaari amru la kii amru ibnu asadin la kii amru ibnu xuwaylit amru ibnu asadin moom la ñu tuddee amru ibnu xuwaylit xuwaylit ak amru mii ñoo bokk benn baay am na ñu ne amru lañ ko bàyyele mu maye ko ñu ni déedéet frère bi lañ ko bàyyele mu maye ko ñu ni déedéet baay baa ko maye muy xuwaylit mooy xiila abuha waaye lu mën a am ga laaj daal ni waaw moom nan lay bañee moom papa ji ba pare di ko maye mu ni sakaraada min isami bi ñu ko dóoree sàngara ba mu màndi tat dañ ko ko Xadija da ko tegal big bi ni ko papa doo signé mu ne ko waaye fu ñaata signature nga bëgg noo ko bëggee rek laa koy defe damay signé di signé di signé di signé ba Xadija ni ko papa waa baax na kon lu ma bëgg a wax mooy jigéen ju baax mais Xadija bi mu lijjantee ba ñu may ko Seydina Muhammad salaay salaam gis nga alal ji mooy finance mais bu dee financé yonent bi lay jox ni ko loo ci def d'accord naa bu doon tey suñu banque yii danga naan Khadija dafa jël carte banque am jox ko Seydina Muhammad bu soxlaa sax day ñëw ci yonent salaay salaam ni ko mën de dama bëggoon a jënd am mbubb yonent bi daal di dem ci gab bi génne jox ko loolu amatul de wala boog am na sax dafa bariwul am na am na jigéen ñoo xam ne ñoom duñ la jox gaa carte bi ñi ci ëpp duñ la jox carte bi waaye loo soxla ñu jox la ko mais nag leen rek a koy yàq mooy doo takk wujju de moom fekk muy doon yow ak ñoom rek moom loo soxla ñu def ko waaye boo takkee keneen ah léegi nag yaay yor kër gi comme da nga koo man bay takk rek nag moom ah yaay def li la war nag waaw wax nañ dëgg nag ku ko mënul loo koy defe waaye nañu dem ñu jël Xadija gis nga bi mu sëyee te yàlla tax non seulement yàlla may na ko moo jur Zeynabu moo jur Umu Kalsum moo jur Roqaya moo jur faatima moo jur Qaasim moo jur Abdullahi mbooleem doom yonent yàlla Muhammad am salaay salaam moo la jur kenn rek la jurul muy Ibrahima mais nañu jël benn doomam benn doomam rek la ñuy jël bu jigéen bu ñuy wax Fatimatu nee nañu doom ja ndey ja xoola xadija fi mu jaar yépp ak yonent bi xadija dem na ba kër bi muy génn àdduna li mu amoon ci ay milliards dafa jeex ci lislaam lenn rek la mujj dese mooy benn kër bu nekk xajuul ca makkatal mukarrama kër googu rek la yonent bi doon ci moom wa min xadijata daaran bil xajuuni xawaa xayrul bariyati min urbin wa min ajami à part kër googu xadija bàyyiwul takkaay takkaayam yépp jaay na ko def ko ci lislaam mbubbam yépp jaay na ko def ko ci lislaam këram yépp jaay na ko def ko ci lislaam bi muy dee benn kër la bàyyi bu nekk màkka muy xajuun mais xoolali ko yàlla fayee shérif mii sëtu xadija la yonent bi amul benn soxnaam bu am doom doom ja am doom bu dul xadija mennum Ibrahima la amal mennum Maariyatul Xibti la amal doom ju ñuy wax Ibrahima Ibrahima majeurul doom yu góor yi kenn majeuru ci jigéen ñi ñoo majeur am ay doom doom yooye ñu am ñooy shérif yi Fatima mooy maamu shérif maami mii shérif maami mii Fatima mii maamam Xadija ko jur mais xoola Fatima li mu doon ne ci ndeyam mooy muñal jëkkër mais nan la jigéen di sëye ba pare bëgg ni lu la neex rek ngay am min baadil mihani mina jigéen juy jaamu yàlla noo def am ay coona mais coono yi da nga koy muñ Fatima dafa nekk ak Ali ibn Abi Talib ku ne xam na ni naar la shérif la di dëbb ba yàgg ay loxoom xonq cur ba yàgg tàmbali génn deret mu dem seeti papaam ni ko papa man dama bëggoon a wax ak àllin pour mu jërëjëf Njaay ndeysaan dañuy jox shérif àddiya karaara yal na yàlla fay dama bëggoon dem seeti Ali ibn Abi Talib papa dama bëgg nga waxal ma ak moom ndax ni nga ma jure noonu nga doone magam mais dama bëgg nga waxal ma ak moom ndax yaa ñu boole yar ni ko ndax du ma dimbali wutal ma mindaan ndax samay loxo yépp dafay fut mënatumaa dëbb Seydina Muhammad ni ko Fatima da nga bëgg mindaan mu ne ko waaw mu ne ko tee ngaa ñëw ma jox la lu gën mindaan Fatima ne ko papa lu gën mindaan man sama loxo yi dagg rek moo tax may wut mi daan de waaye du leneen mu ne ko Fatima dëbbal say loxo na dagg na nàcc waaye jëlal ma jox la baaqiyaatu saalihaat julli goo julli boo sëlmalee defal subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett allahu akbar fanweeri yoon ak ñett tëje ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu muy téeméer bi mu ne ko loolu moo gën mindaan te may naa la ko ndax sa ñàkk mindaan léegi bu la neexee ma jël sama yëf wax alil muutal la mindaan bu la neexee ma bàyyi laak lii te nga bañ a am mindaan Fatima ne ko baal ma téye lii te bañ a am mindaan ndax man naa ko siiwal mu ne ko siiwal ko ne ko ñëpp xam mais ñu ngi nii tey fii ci ndakaaru cité kër Damel Ibrahima Ndiaye saala bige ñu ziyaar la ban góor moo fi fi mu toll nii mën a am mindaan ni doo wutal sa jabar mindaan mais xoolal Fatima bi ñu koy may Ali ibn Abi Talib Alioune yorul dara bi ñu ko nee joxeel cen Alioune yorul dara Fatima nangoo sëy te yàlla tax Ousmane ibn Affan moo jënd benn manto geeram daal di koy jox al Alioune Alioune maye maye loola may gu njëkk ba pare Ousmane jëlaat may manto bi mayaat ko Ali ibn Abi Talib mais xoolal sëy bi. nañu dem ci biir sëy bi bi ñuy sëy ba yàgg dafa am benn bis benn jigéen bu ñuy wax Fatimatu bintu Jaxsin mere Fatimatu bintu Muhammad ñëw ni ko yow Fatima xaw ma li ngay tiitaru lu mu doon waaye xam nga ni yow duma sa moroom coow lee fi ne rek waaye yow maa la gën maa la dàq Fatima ni ko yow loo tuddee taar mu ni ko lépp maa la ko dàqale biir ak biti Fatima ni ko yow li nga defee ni mooy taar sax du taar yow fii ngay wax te taar fii la yow kanam ngay wax ak matériel taar xol la ku la gën xol moo la dàq baal ba ñu dem ci kanamu yàlla ku yàlla ni yaa gën xol ñu xam ne yaa dàq mais duggoo sama xol ba war a xam maag yow ku gën kooku dem këram ràkkaaju day am gën a rakkaaju nag xam nga nu mu def ñëw ni ko Fatima yow maa ngi lay wax ngay wax waxi xol xanaa xam nga ne sam pàppaa gën sa papa foofu la kaaju yem kooku ne ko sam papa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko sa papa Muhammad sam papa ko gën mu ne ko lu mu ko gëne mu ne ko li dëkk bi yaatu yaatu ñetti tabax yoo romb ñaar yi sam moom sa papa amu fi dara benn kër la am màkkate ci sa yaay la ko doon bu baaxoon am ci teraanga yi Fatima ni ko loolu du suñuy wax xam nga du ñuy def dañuy bàyyi ba noor du jot ñu déglu jàkka yi ku ñu tudd papaam rek ñu xam ne kookoo gën papa tontu na ko ñu jékki rek nodd jot allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah an muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ne leen sallallahu alayhi wa sallam ku ñu tudd papaam bintu muhammad ah bintu jaxsi jaaxle dem ci papaam papa bintu muhammad de dama ko ni woon maa la gën mu ni xol la ma ni ko yaa gën papaam mu ni ki gën pappa jàkka yi dinañ tudd papaam te jàkka yépp papaam lañ tudd papa yaa ko mën a faj mu ni ko nu ma koy faje mu ni ko papa am nga alal jàkka ju papaam am ci koñ bi baa ci dëkk bi tabaxal jàkka ca wet ga wut noddukat buy noddu di la tudd papa ji ni ko doom nañu waxtaan loolu mën naa ko mën naa tabax jàkka mën naa fay noddukat mais xam nga fu problème bi ne julli parce que julli lañ dul am ñun mu ne ko papa kon damay génn dëkk bi ndax xajatuma feek Fatima ndax yàpp na ma déet bul dem damay génn dëkk bi mu ne ko déedéet danga ko bëgg toroxal rek mu ne ko papa dama bëgg toroxal Fatima ci digg mi Medinatul Munawwara mu ne ko danga nga ko bëgg a toroxal mu ne ko waaw xamul ni doom ju ndeyam liggéey kenn mënu ko toroxal ku ko bëgg a toroxal yaay torox nu may def mu ne ko kaay ma maye la ba tey maa ngi ci pour nga bañ a rëcc maa ngi ci jigéen ju baax mënuñu ko tudd te tudduñu jëkkër nu may def kaay ma mayee la papa kañ nga may maye gaaw ci mu ne ko samdilaa lay may sa benn cousin bu ma la koy may Fatima ngay def sa invité d'honneur xam naa ne du solu du sañse amul lu mu sol benn mël fa la am bu ko solee ba ñëw toog ci taabulu salon ci taabulu marié bi yaag sa xarit yi ngeen sañse ni tëll yuuxoo ko mu am gàcce gu dootul fay ba faw mu d'accord ak baayam pour toroxal Fatima ñëw ci Fatima yaay sama invité d'honneur Fatima rafetlu ko ndax xamul ni kompaloo la takk gi kañ la samedi alxames Fatima ñëw ci Ali ibn Abi Talib jëkkëram Alioune dooma may lu ma jënd yére dama am marias Alioune ni ko ah man yoruma de fan yi yëpp yaa jaayoon sa benn jaaro ñu doon ko demee marché gisoo yëpp yi mu demuñu marché ndax ñàkk Alioune nu may def ak takk gi mu ne ko nga solli nga am rek baa nga toog mu ne ko ah kon baal ma solli ma am te dem ndax moo gën a rafet ndax teraanga kenn du ko delloo alxames amul lu mu sol ajjuma Fatima amul lu mu sol bi muy tëdd guddi gi mëlfa bi bu koy fóot guddi la koy fóot ndax ñàkk lu mu remplacé bi muy tëdd ajjuma ci guddi ci la fóot mëlfa bi fanaan ba yeewu fajar mu mëlfa wu mëlfaam yendoo ko samedi bi quatre heures mu tàllal loxo yi àllin àllin ñaanal ko pour mu dem takk ga mëlfa baa nga furi wax ma lu keneen wax rasulillahi dañuy ñaan ku ne ci tant bi néeg nii sa loxo ma joobe doomu Abdoulaye Diaga Amina yaay dafa am solo de boo demee nee nañu la lam tazal fi damaa'iril kawni tuxtaaru lakal ummahaatu wal abaawu sayidna muhammad jigéen ju ko mënoon a jur du tere mu doon li mu doon yaa habaza zaaka nabiyul akramu madame Diop yàlla boo ko ñàkkati ci barke rasulillahi mani waaye nabi la sëriñ Babacar si waxoon rek dama jekki ba mu yàgg daal ni yàlla boo ko ñàkkati yàlla moo ma defal chance man Babacar si alaaji Malick di sama baay Roqaye Njaay di sama yaay waaye moo defal alaaji Maalik it chance mu jur ma waaye man bu ma la woon fàndeen juróon it du tere ma doon xalifa cheikh gis nga nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu day am léeg nga am chance su juddoo baax ba pare say waajur kenn du leen mën a xas loolu ndey moo koy liggéeyal doomam Seydina Muhammad ku ko mënoon a jur tere mu doon rasulillahi waaye waxkat bi dani la jamono ju ma sa ñëw rek ñu ngi seet yaay ju amul sikk yoo xam ni kenn mënu koo xase dara di ko tànn pour mu war a jur rasulillahi ndax am yaay ba pare foo génn ñu ni la sa yaay ji accam loolu dara jaru ko moo waral lam tasal masul deñ fii damaa'iril kawni ci biir univers bi tuxtaaru ñuy tànn ka ñeelal ummahaatu yaay ju baax wal abaaw ak baay bu baax yow rasulillahi ya habaza laka nabiyul akram moo yonent bu tedd bi Cheikh Nasir Saaduni cheikh na cheikh Saadu ne amul kenn ku am garaat ku jiitu ni sama maam jiitoo moom rasulillah cheikh na cheikh Saadu ne mbooleem gaa yi doon jëkkante sama maam ay seen njiit moom rasulillah cheikh na cheikh Saadu ne garaat bi sama maam takk keneen dootu ko takk ba addunay tukki moom rek la ko yàlla takkal jeex na wax malu keneen wax heure bi dem na déggal Cheikh Al Hadj Malick baayu Serigne Babacar Sy ngi joobe Seyyidina Muhammadu déggal maami Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy maami Serigne Abdoul Aziz Al Amin maami Serigne Mbaye Sy Mansour a ngi joobe rasulillahi فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين المصلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون alaaji Malick ne mbooleem mbindeef yi sekkere bi yàlla def ci ñoom mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam Seydi Aji Malick ne yonent bi duñu ko xame fii ñu ne ko fu ñu koy xame mu ne yow ma nahuudu bi su tiitaange ba bu jotee ba jaam yépp dekki ci seeni bàmmeel doom yàlla na yàlla barkeel bu jaam yépp dekkee ci bàmmeel yi maam Seydi Hadji Malick ne su keroogee la ñuy xam kan mooy baayu Fatima ak Roqaya sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Malick ne bu ëllëg yaa shafal adwa jalla maam Seydi Hadji ne xamoon yonent si yàlla Muhammad loxoom bi moo tuddoon raay mu sedd am na benn pommade bu ñuy wax raay mu sedd wala paccal zor yee ko gën a xam bu ñu la taakalee te nga doon zor bu ñu am yaakaar croix rouge bi bu ñëwee rek danaan la ko ces day mel ni galaas après day sedd loxo yonent yàlla Muhammad Ibrahima Sall bii noonu la meloon moom fuy metti rek bu ko ca tegee rek foofa day sedd bihaa ca loxoom ba safaa la daan saafara jalla ilaahuna yàlla al adwa ay jàngoro baal ma ma daaneel ma ni yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp waaye jigéen ñi pour ma daaneel thème bi ngeen bàyyi xel ni Sénégal am nañu royukaay Sénégal am nañu royukaay xam nga nag Sénégal waxoon naa ko ci benn conférence xaw ma fii la xaw ma nee naa leen Sénégal imam bokk na ci li tardeel suñu génération fii laa ko waxee woon defe naa ne mooy Seydina Limaamu julli na ci géej gi Serigne Touba ah Seydina Limaamu rëdd na géej gi Serigne Touba julli na ci géej gi Alaaji Malick <laughs> yàlla boo ko ñàkk ah, xaar ma xaar ma Sidi Sidi xaar ma damay daaneel Sidi xaar ma ma ni imaam xam nga loolu lu ma ci jublu papa ndeysaan dimbali ko mu toog dimbali ko mu toog Sidi dimbali ko kaay wuyu ko waaw wallaay wallaay wallaay donc donc jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ma ni dama ko wax muy wax ju doy waar dama ni ñett yii moo ñu tardeel Seydina Limaamu rëdd na géej gi Serigne Touba julli na ci géej gi sëriñ Babacar si borom bone kaare bi xam nga lu tax mooy boo ñëwee ci tànt ni Cheikh Ahmad Bamba moo julli ci géej gi ñu ne est-ce que est-ce que est-ce que daal di jóg ëllëg bu ñu jógee ca tànt ba ñu jéem a xam Cheikh Ahmad ba ci lan la nekkoon ba yàlla may ko mu mën a sànni der ci géej julli te duggul ca biir géej ga bu ñu mënul julli ci géej it ñu def loola mu doon def du ñu ko def dañ naan est rek yem ci te Cheikh Ahmad Bamba ne rajaa u jannatin bila taati bi sunnati lmaahi xururun yaati Cheikh Ahmad Bamba ne ku bëgg a dem àjjana ëllëg te ni doo topp yàlla dangay nax sa bopp kon kooku waree na lu leer ma ne beneen bi mooy naa Limaam kenn ku ne xam na ni pied dans l'eau ay millions yu bari lay jar mètre carré bi man bu ma yàlla mayoon ma mën a dem ci géej gi ni ko géej yemal fii mu yem fa te dootu fa jóge ay mètre carré yu baree bari laa fay dër ndax dama koy jaay am xaalis mais moom yàlla may ko mu mën a ñëw ba ci géej gi géej gi di lekk kër yi mu ni géej yemal fii booba ba tey géej yem fa mu nga tëdd fa mu tëdd géej ñemewul la bouger ndax nitu yàlla moo ko ne yemal fii mais il yee ñu jéem a xam naa Seydina Limaamu mbaax gi mu nekkoon ba am loolu ñun bu ñu am mënul am loolu yit ñu nekk ci mbaax googu déedéet fi la ñuy ne rek Seydina Limaamu moo rëdd géej ñuy daanu rek te la mu nekkoon yépp ñu teg ko fële ne ci leneen maa ngi ñëw damay nettali ni Serigne Cheikh dafa jënd mbaxane bi beneen mbaxane xewee ni ko bii ya gën a xew mu natt ba pare daal ni ko Cheikh waaye du may def ak kóllëre bàyyil ma sol bone carré rek ndax kóllëre ma ni xoola boo ko waxee ñëpp ni est-ce que kóllëre ba pare seen kóllëre yëpp dagg nañ ko ki nga xam ne day sàmm kóllëre ba sàmm ko ci mbaxane yow nga ni moom nga bëgg mais sàmmal sa kóllëre loolooy njëriñ li waaye est-ce que rek est-ce que am na njëriñ xam nga lu ma bëgg a wax foofu nag mooy jigéen ñiñ fi nettali yépp li ñu nekkoon mbir mi du est-ce xam nga mooy lan mooy bu ñu jógee ci tànt bii bu yàlla dogalee déwén ñuy dellu si imaam Samb mën a jël kàddu gi daal ni ah tafsir waxtaanu daaw wi day def na lu jéego yu am solo ci koñ bi ndax diw ak meloon nañu nii ak nii waaye léegi yàlla dogal na ba ñu fi jógee wujju sàngam dem na seeti wujju sàngamam ñu juboo ba léegi tabaskee korité ñoom ñaaray bokk korité ñoom ñaaray bokk tabaski nangam nangam diw kat jabaram defoon na nangam ak nangam mais léegi li yëg lii ñu xam ni waxtaan wi mu ngi jëriñ ndax mu ngi bëgg a yàgg nag kon ñu ngi ñaan dégg ak topp ayaa saamian laysa sibaahu bi naafiin ida anta lam tafal fa ma anta saamiu fekk nga di ma déglu te li may wax daaw moo ñëwaatee ren moom laay wax te yow boo xoolee sa bopp gis ni changé woo la nga nekkoon rek ci nga ne dégg góoma boo nga dégg ma mooy li nga dekkoon daaw da nga ciy jóg bàyyi ma ma bari wax di wax rek bu ko defee yow ngay avancé def ay pas def ay jéego yàlla nañ ko yàlla defal. fa tabaarakallahu yàlla nañu yàlla may nopp topp dégg ak jëfe li tafsir wax liñ ci tiire mooy li seen maam ju baax ji wax Cheikh Ahmad Bamba nee na wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqaa wal birru yaa muinu kon fexe leen ba doon loolu jigéen ñi war nañoo fexe ba doon gàllaaj doon gànnaay ci seen boroom kër yi ndax Cheikhul Khadim nee na jabar ju baax gàllaaj la gànnaay la indil nañ leen nag yan jigéen ñooy suñuy référence sittuna Khadija sittuna Fatima ñoom ay ak mooy Ali Beyti Muxtaar waa kër yonent bi yépp wëlbatiku nag génneel la itam ba tey génnul kër yonent bi muy kan maam Fawa Dewele soxna Roqaye Njaay yaa Aminata Buso yaa Awa Buso maam Jaara Buso moo tax ñu jur ñii ñu jur Cheikh Fadilu Mbàkke waaja dafa ñëw ca moom ñu koy wax Baay Suur cheikh la woon sëñ Bàmbaa ko seexal mu ñëw ne xaaral ma jeeti sëñ Fàllu ndax ma yóbbu dara kër ga ndax cin yi mën a tàkk kër ga mu ñëw fekk ñu indi fa guro gu bare bare bare bare mu ne ko bàyyi suur guro bii da nga fi fekk jël genn wàll guro bi yëpp jox ko bàyyi suur ne ah guro de baax na guro de baax na waaye guro dafa wex man guro taxu ma woon a jóg lu ma yóbbu kër ga ngir cin yi mën a tàkk ma taxoon a jóg ma ñëw góor gi di ma jox guro gu bari gii gure baax na de waaye guro taxu ma woon a jóg góor gi jóg di dugg ci suturaam sa muy néeg ma mu ne góor gaa ngi nii di dugg balay génnati yàlla xam waay waay waay waay guro dafa weex waay guro gi nag bari na baax na waaye man lu ma yóbbu woon kër gi rek ngir ci ni mën a tàkk moo ma taxoon a jóg jékki-jékki rek suñ fàllu génnaat ci néeg bi génnee fukki junni jamono jooju ne ko bàyyi suur mu ne ko waaw mu ne ko am lii dolli ko ci ndax nga weqalee ko guro gi dégloo guro dafa wex mu ne ko am lii ndax nga weqalee ko guro gi ndax cin yi mën a tàkk kër ga mu ne ko mbàkke mbàkke mbàkke lii lan la mbàkke may wax ak sama bopp mbàkke nga dima ma tontoo nii mu ne ko xanaa da nga fàtte la góor ga waxoon sëñ Tuuba góor ga nee na yaral xafaaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxta al akidnaati gis nga loolu Xuzayfatu bnul Yamaani moo ko donnoon ci rasulillahi moo doon saaxibi sirri rasulillahi yonent bee ko rofon secret boobu nga xamante ni bu jàkkaarloog yow gis ci li ne ci yow yëpp bu dee da nga dëggu dina ko xam bu dee nifaaqa nekk ci yow dina ko xam bu dee la nga yéene yëpp yëpp def da koy gis moo tax saaba yi dañ ko daan daw kenn rek ko ñemoon affronté muy Seydina Omar moo daan ñëw ba ci kanamam rek taxaw ne ko alors noo ma gisee mu xool ko xool ko ne ko baax nga zéro mu ne ko kon su ma delloo sax ci lii ma ne gën a góorlu waa loolu du fi deñ du fi jeex ku liggéey rek am ko ñu bàyyi xel itam ni jigéen mën na jur ku ne imaamu koñ bi dans vingt ans trente ans wala dans quinze ans mu war a nekk imaamu koñ bi njàng mi mat na mbaax gi mat na maandu gi mat na mu doy ñu waaye benn saay-saay bu mel ni man nga xam ne saboté rek a ko tax a jóg mooy génne xool leen photo yaayam xool leen ni mu doon def fii kooku dina tax doom dina gàddaay toxi dukk jóge dëkk dem beneen dëkk kon loolu yëpp nañ ci bàyyi xel ndax kat wax dëgg yàlla ak doom ci wayjur dafa am waaye ak wayjur ci doom dafa am nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax yàlla nañu yàlla may nopp topp dégg ak jëfe tafsir tey nag moom ci ngoon incha allah xam naa ni la nga liggéey ca Casamance dinañ ko wane 22h sur la 2STV ñuy woo ñëpp ñu toog seetaan ko déglu ko ndax tafsir dafa am lu am solo lu ci indi ci jàmm te dafa soxal réew mi soxal xalif yi soxal njiitu réew mi soxal mbooleem ku nekk ci réew mi ndax bi waa Amérique ñëwee fii xool suufu Casamance dañ ne. Casamance bu fi jàmm amee ñu liggéey normalement waxuñu Sénégal déedéet dafa ne Afrique de l'Ouest yëpp Casamance mun na leen dundal waa ñuy seetaan xeex bi ba kañ ku nekk nag danga ci am parti boo ci war a def autorité étatique yi dañ ci am luñ ci war a def autorité coutumière yi dafa am luñ ci war a def autorité religieuse yi itam dañu am luñ ci war a def ñun ñëpp nag ñoo composé àddina ku ne war cee dox sa rôle waaye keroog dox nga fa dox boo xamante ni bu ñu yàlla nangulee incha allahu taala te gëm nañ ko ndax bi nga waxtaanee ba daaneel ñuy jóg di ñibbi rek yàlla ubbi asamaan si muy commencé taw am nañ ci yaakaar yàlla na yàlla delloo si jàmm Casamance def ko ci réew mi am na lu ma ci wax bi tafsir di waxtaan mu mu yàgg dafa ne joxante leen loxo parce que dafa bëgg ñëpp juboo ma ne dëgg la joxante leen loxo ñëpp a ngi joxante loxo waaye tafsir bi gën a am solo mooy nañu génnee loxo xol yi joxante loxo xol yi tafsir bu ci jublu rek loolu la ci jublu ne ku nekk baal sa morom te yàlla tax ku tooñoon bul rëy demal nga baalu ji te yàlla tax bu boobaa rek jàmm dellusiwaat yàlla na fi yàlla dolli jàmm kawnu nabil muntaxa muhammad xayral waral muxtaara inna samadi na ñëpp def lii ñu màggal sayyiduna muhammad xaaj gu lam goyee ci ay nelaw